asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 4 décembre 2019 ñu ñëw yéen yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey sunu lamb xëy na fi yëglikaay bi record ak la tribune bu dee yëglikaay bi di sunu lamb la moom kenn la xëy dalal muy la mbaru di da Pikine Balla Beye numéro 2 baabooy nag dafa xëy di wax ay dëggam ne na na leer nañ leer waa Pikine waaye tamit leer waa senegal ni moom daal nekkul koo xam ne nii si na koo génn fi nga xam ne moo di Pikine ndax moom Pikine la dëkk tey suba waxi noppi kon daal jàpp ne moom kenn bu mu koy jéem sax di ko jéem a génn Pikine ndax nag moom daal jàpp na ne benn mu ne su koo sorko sorko te itam nekkul ab ragal boo xam ne nii danga koy xëbal muy daw moom booy moom mii nga xam ne daal mooy baabooy loolu la xëy tey ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb mbirum booy ñang tamit nee na daal loolu moom amu ci loo xam ne nii moom lu mu ci mën a wax la moom daal li mu xam ne daal nee na la leer nañ daal moom daal Pikine la dëkk tey suba waxi noppi ñu ne ko sa diggante ak Balla Gaye numéro 2 mu ne loolu moom li leer ba leer moom dafa xam maay kan jox ma sama cër moo tax itam nangam ma delloo ko ko ndax nag man ku ma yëkkal xël ma yëkkal la gang ndax ñoo yam ay gàjjoon loolu mooy wax ki nga xam ne nii moom moo di Balla Beye numéro 2 tey ci yëglikaay bi nga xam ne nii day moom moo di sunu làmb mu mel ni ki daal tey kon moom foofu la xëy wax faa wax bana xaw leneen loo xam ne tamit wala keneen koo xam ne yëglikaay bi dafa ñëw ci moom ne na moom est ce que du day waajal ak dellu seem ci làmb ji muy Gaston mbeng ndax nag sunu lam ne na fan yi moom boo seetloo ay sortem bëri na li muy gën di wax dal bëri na moo tax yëglikaay bi di laaj ndax est ce que du Gaston mii day waajal ngir dellu siwaat ci làmb ji kew xam ne nii moom ñëw na ci làmb ji ba daal di fi taxawalu combat muy ki nga xam ne mooy xaarim sàmb ba nekkoon ca RTS yëglikaay bi ne daal ginnaaw ba mu taxawalee Boursine ak Eumeu Sène Junior ne na loolu du doy pour la 9 février moo tax nag mu jël Alioune Seye numéro 2 bu écrit waalo ak ñaqi jariñu ba nekk ca Caaroy boole leen fas leen yéenee nag dugal ca bés booba yëglikaay bi ñëw na tey dina ko wax kenn koo xam ne moom la mu boole dañ doon jàkkaarloo ca Gàmbi muy Jamaïcain daa mel ni tàngun na jir muy diggante Baye Mandione ak Xuyantaan Baye Mandione moom dal na ca xaw Xuyantaan ba mu tàng jër nee na ko day ay seconde laa la may waaye tamit dafa mel ni xoyantaan tontu du forox la ko def nee na ko njoon yow buñ bëree dix fois ma daan la dix fois maanaam fukki yoon buñ ko séqee bëri ma daan la fukki yoon yoo xam ne doo amub jël mu mel ni kon daal gàmbi googu tamit nar naa tàng jër ndax nag la ko wane mooy face à face ba ñu def bërki dem ca gàmbi tàngoon na ba yegg ci lool keneen koo xam ne moom ay mbiram dafa tàng jër fi mu nekk nii mooy maama Lamine yëglikaay bi ñëw na ci moom maama daal fi mu nekk nii moom mayewut dara ñu ne ko léegi loo bëgg nag ginnaaw bi nga daanee ki nga xam ne nii moom moo di ki nga xam ne moo di jokkeel maama nee na li leer ba leer daal li ñëpp wax mooy dëgg nee na man daal pare naa ngir double moteur ne na bu paree daal man maama Lamine fi mu nekk nii moom pare na ngir fas yéene nag defanteek moom ba mu saf sap beneen combat boo xam ne tamit am na ñu war koo bëri ay xale war koo bëri muy diggante bulldozer ba nga xam ne nii day moo dëkk fa nga xam ne moo ca diggante Malika Kër ma Massar ak ki nga xam ne nii day moom moo di brise de mer numéro deux mu mel ni nag Sawru Fall di ab menacé moo xëy di analyser combat moom jàpp na ne combat ba day mën ta dépasser cinq minutes moom Sawru Fall daal gis-gis booba la am ci boobu combat mu mel ni ki daa jàpp ne daal ñoom bu ñu laalante yàgg naru faa am leneen loo xam ne tamit dañ koy fekk fi nga xam ne nii day moom moo di ca yëglikaay bi di record déggool nag moo xëy di weddi ndax Gaston Mbengue bu xëy bu fi taxawee fan yi ne moom doxul Balla gay 2 ak ki nga xam ne nii day moo di booy Niang 2 mu mel ni ki nag dégool di bàyyi booy Niang weddi na lool ba mu set wecc nee na li leer ba leer day Aziz Ndiaye ak Gaston Mbengue nee na ñoom ñoo ko contacté bëgg combat doomam ji ak Balla gay numéro 2 moom dégool moo xëy tey ci yëglekaay bi nga xam ne nii day moo di record di wax lu mel ni ki noonu bu nu demee ca la tribune moom dañoo xëy sampab laaj di wax ne Tapha Tine ginnaaw daa paan adversaire yëglekaay bi waa léegi la ñu ko war a jox yëglikaay bi moo xëy ñëw di wax lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne dañ cay dem muy làmbi simple ji mu mel ni ki loo xam ne guléet la nar a doon muy ci arène nationale dix millions yoo xam ne day galaa lay doon boo xam ne day wàllum bëre simple le vingt neuf décembre record tamit ñëw na ci lu mel ni ki noonu waaye koo xam ne tamit daa nekkoon ci làmb def ci lam ca war a def bu wuyu ji boromam muy ki nga xam ne moo di Xadi Juuf mu mel ni nag moo tax ak njabootam fàtte ko yëglikaay bi di moo ci xëy ñëw nee na boo bëggee dëgg-dëgg le 7 décembre bi nu nekk maanaam samedi ji nu dem day ca Sokone fa lañ ko fas yéenee delloo njukkal teg fa un million ak njabootam ñoo def loolu yëglikaay bi di record moo xëy ñëw wax nu ko ba tey yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb moom dan fay dellu ndax nag ka nga xam ne moo di yax yi jub yëkki ni moom ne na daa am seetlu boo xam ne nii moom la def benn taxaw seetlu bu doy waar moom jàpp na ne léegi galaay làmb yu mag yi maanaam galaa séréer yi nga xam ne mooy yu mag a mag yi daal daa seetlu ne léegi mbëri séréer yi mënatuñ koo gañe loolu moo ko jaaxal moo tax mu xëy samp ci ab laaj mu mel ni caaka fay moom am na lu muy tontu wala boog am na lu mu nar nee na moom daal lenn li mu bëgg mooy li leer ba leer daal saison bii mu nekk moom mu def bu gën bi nga xam ne nii moom la defoon daaw maanaam saison ren moom daal gën bu daam loolu mooy waxi caaka fay ginnaaw ba mu gañe fa nga xam ne moo di Adrien Senghor waaye leneen loo xam ne tamit dañ cay dem ndax nag ay nit lañ yoo xam ne day sa dimanche ji nu génne moom boo bëggee dégg-dégg combat leen joxoon ca Iba Mar wane nañ ca seen bopp di ay xale diwaan ca la bokk Petit Baye Fall ki nga xam ne mooy trompeur numéro de ak buubu joom mu mel ni ki daal lambi Fallou Ndiaye jëkkër ñoom ñi day nome woon nañ leen ca waaye wan nañ ne daal lañ leen ca nome woon wane nañ ko ba mu mët sëkk ndax nag bëri nañ ci jom bëri ci fulla yàlla may leen ay ndam mu mel ni ki tey kon loolu moo fi ñëwoon ci yëglekaay yi. moo ko waa Leewtoo TV ñu leen di nuyu di leen gërëm leen sant Babacar ngeen àndaloon si revue si jàngatu arène bi Babacar maa leen nuyu di la ziar si mercredi bi. <laughs> maa ngi lay fay di la delloo ziar yow tamit ci mercredi bi di nuy internet yëpp di leen ziar di leen ñaanal jàmm te di ko saaku ci ñoom képp koo xam ne daal yaa ngi ñuy suivre moo xam yaa ngi seetaan wala ngay bind di commentaire ak foo mën a nekk ci àddina bi rek ñu ngi lay ñaanal jàmm te di ko saaku ci yow. mais Babacar dafa mel ni ballon d'or mi ngi continué de gars yi dem comme ak clash na la ci commentaire yi de. waaw non loolu gis-gis la rek du question de classe xam nga ku gisee. xam nga àddina moom ñàkk gi bokk gis-gis moo tax marchandise di jar yaa ngi dégg man yaakaar naa li mu wax am naa droit wax ko te damay ko wax ku ne na ne que fañ ko a nga droit far faral loolu moom du ma leen si jëlee internet yëpp ku ci ne rek ñun ñoo far ñi dañuy wax lii ñuy ñuy wax le mais ñun yaakaar naa bu Sadio defu kon dara amuñ jot ak toog fii sax di ko wax naan ay Sadio Mané wala nanga mais nag li suñu suñu bët yi may gis ko wax dëgg yàlla faw ñu wax ko moom ak a xew. loolu am na solo Babacar ñëw nag sunu laam sunu laam ne dafa xëy dalal ki nga xam ne mooy Baboy la Marodi de Pikine moom naa dafa xëy daal di wax daal loo xam ne métti na ko moom nee na waa Pikine moom moom li nga xam ne mooy image am nee na bu nga ko na si digganteem ak Boy Niang Boy Boy Niang 2 muy doomu dugal mu nee na du si commentaire. waaw Balla Beye day bu xëyee tey wax ne que moom. mu ne su yàq deram wala image am wala ñu ko fay génne ndax du ragal ak yooyu yaakaar naa loolu moom euh, defe naa ne day nekk mbir moo xam ne daal est-ce que nit dina jéem a def loolu pour man yaakaaruma ko xëy na wala boog bu amee moom xëy na moo ko xam ndax itam <laughs> mag mu ne moo gën xam màtti lalam moom xëy na moom mi wax loolu xëy na am na lu tax mu wax loolu waaye ak li ci mën a xew mooy que ni ñun moom li ñu ciy wax mooy que ni ñoom ñi dëkk pikin bokk pikin te yàlla def ñu yeewandoo Pikine di ay doomu Pikine fu ñu mën a nekk rek ñu gën a joxante cër gën a bëggante gën a yenente jàmm ku ci nekk li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom pour man loolu mooy jàmmal ñëpp te loolu dafa valable pour doomu aadama yépp nit moom soo bëggee noppal si àddina ah da ngay yéene nit ñi jàmm ji nga yéene sa bopp yaakaar naa lool su amee rek jàmm dina na ñooy continuer am parce que moom loolu mu wax que ni moom personnalité la Pikine ci wàll gi mu doon yëngatu défendre na ci couleur Pikine saa su ne kon yaakaar naa itam defe naa ne warul nekk koo xam ne tey dañ ko fay jéem a yàqal wala nangam yaakaaru mu ne loolu war na mën a am wala itam bu amee itam daal du doon lu gën mais daal liñ ci wax mooy que ni rek jàmm moom yàlla na ko yàlla tuur foofu nga xam ne mooy Pikine mais tuur ko ci àddina Amin Babacar journal bi aussi mu ni xamal ki nga xam ni mooy Khadim Sam nekkoon euh, présentateur euh, cabaxal fee nga xam ni mooy euh, RTS moom léegi nag nekk na promoteur taxawal na beneen combat muy diggante Alioune Seye ak ñaq jariñ waaw moom duñ mën a def lu dul jaajëfal ku tam parce que tamit wax dëgg yàlla yàgg na ci làmb ci côté bu ne Khadim bu defee naa ne suñu papa Khadim Samb sax laay wax làmb moom marqué na ci empreinte am ci côté yu nekk tey su ko neexoon day dem retraite toogi mais nag nekkoon na avant ñu koy xam ci wàllum animation mu nekk animateur nekk ci làmb jàppale ay promoteur jàppale ay mbër tey mu liggéey RTS ba bàyyi ñëw tey di tëggaat làmb vraiment loolu moo lay wan ne moom itam sport Sénégal daal fonk na ko te itam mu ngi wane ne moom sénégalais piir la diggante Alioune Seye dén ak ñàkk jëriñ boobu mu indi yaakaar naa ne wax dëgg yàlla combat bu neex a neex a neex la moom yàlla nañ fi yàlla bàyyi bu mois de février boobu ñu mën ko seetaani ci arène nationale keneen ki nga xam nag moo wane boppam si journal bi moom mooy euh, ki nga xam ni mooy euh, Mama Lamine ginnaaw bu ma amee ndam si jokkeel weekend bii nu génn moom daal nee na preneur pour bëreek euh, double moteur. waaw moog double moteur day yoonu làmb la làmb ju jaadu la parce que mbër moom làmb dug maas dabante la te Mama Lamine actuellement bëri na mbër yu mu dab ci làmb parce que li tax mooy waxuñu ko nag que ni dañuy wax lu ko neex non non non ñun tolluwuñ foofu fi ñu toll mooy nit ki ci ay résultats ci lañ ko mën a àttee. parce que ba ki nga xam ne mooy kiwel daanee ba tey dañu gis Maama Lamine xeexam amélioré bërim gën a teg bërim ci yoon mu mel ni defet boobu am na lu mu ci jëlee boobu ba tey nag mu ngi ci suma jumul cinq victoire d'affilée yu mu teglante kon yaakaar naa tey su daanee bëri ki dem jokkeel double moteur daan daaw magi Maama Lamine muy fëgg la kon defe naa ne am na droit tey ne buñ ko joxee double moteur mu jël ko te yaakaar naa itam lamb boole na leen waaye itam la ma koy wax rek lamb moom du fixation moom moo xam double moteur la Mod ja général bu Fass Pam Mbaye bee ko doon Mor pour mën ñi ñëpp ay adversaire u Mama Lamine lañu Babacar suñu jógee nag suñu laam dañuy dem fi nga xam ne mooy record si xalima Abou Nour record nag moo dafa may léegi carte gi leer nga carte bi leer na parce que ñu doon laam-laamee fan yëpp ñu naan combat bi booy diggante Boy Niang ak Balla ni ñu koy dox Gaston génn ne moom doxul combat Balla Gaye génn ne kenn doxul combat mais nag ñi nga xam ni mooy euh, waa kër ñoom euh, Boy Niang muy muy du muy muy dëggool génn na daal leeral ne nag combat bi Aziz ak com ak Gaston mi ni ñu koy dox moom kay da nga naan papaay Boy Niang ndax déggoo la xëy wax ci record ka ni ginnaaw bi ñooñu wax bi bàll ne moom ni proposé ko kenn ku maanaam waxuñu ko waxi Boy Niang Gaston tamit wax ne moom doxul combat boobu dugal moom weddi na loolu parce que moom ne ne muy Gaston muy Aziz ku ci ne contacté na ko ngir bëgg combat Balla Gaye 2 ak Boy Niang ah, loolu nag duñ ci mën a sori ñoom ñi wax nit sénégalais yaa ngi dégg yokkalool ak Babacar nee na woo nañ ko fekk nelaw jotu na ko ñoom noo woo Boy Niang pour ne ko sa combat ak Balla Gaye moo tax ma ne la loolu comme déjà am na ñoom waxante nañu loolu lim am solo mooy a ah, ñu yónni yàgg rek ba xam bu demee ba ñëw dina am lu mu indi doxuñu doxuñu ma ñu ngi dox woo nañ ma nañ bàyyi li si kanam raw li bët hmm? Babacar suñ jógee nag fi nga xam ne mooy record dañu dem fi nga xam ne mooy tribune ci biir tribune moom dañoo xëy di ñu di laaj samp laaj ne kan moo war a bëree ki nga xam ne mooy Tapha Tine waaw loolu Tapha Tine dañu war a bëreel moom defe naa ne laaj boobu moom tontu ko yomb na ndax ay adversaire am doo nga ne ci làmb ji Bombardier adversaire am ndax moo am ndam ci kawam ki nga xam ne mooy Balla Gaye da ndax Balla amoon ci moom ndam Lac de tam amoon na ci moom ndam adversaire am Ama Baldé noonu adversaire la Boy Niang moo adversaire la Gris Bordeaux la kon defe naa ñooñu rek war a bëri ak moom waaw. Leewtoo point net moom mi ñuy xamal ki nga xam ne mooy Garga Mbossé mu defee 3 mois États-Unis ñibbisi na. diggante guddi lundi ak mardi Babacar. waaw mu ngi Sénégal moom Garga Mbossé moom itam nekkoon États-Unis ci ay xam naa ay préparation ñëw na Sénégal ah loolu tamit ñu koy wax rek mu dal ak jàmm parce que moom tamit vraiment daaw wane na lu leer nañ ci diggante ak Moussa Ndoye kon yaakaar naa fi mu nekk nii ah vraiment war nañ ko mën a jox combat tamit mu bëre parce que tamit ci mbër yi la bokk te ci yaakaaru lamb yi la bokk moom Garga Mbossé. Babacar si kàddu yoon leen tàggoon leen jox suba incha allah mais balaa boobu muy nuyu sama yaay mère soo nuyu sama doom Mouhamed Diouf di nuyu Astandine déjà Brahma euh, depuis Italie chéri Khadija Diallo di nuyu ki nga xam ne mooy As Seck chéri Khoudia depuis Italie aussi maa leen di nuyu nuyu Abou Gaye Pape Site depuis euh, États-Unis aussi maa ngi koy nuyu di ki nga xam ne mooy May Sey depuis West Far yaa ngi si biir nuyu samay doom Mame Diarra Penda Fallo Rokhaya ak ki nga xam ne mooy Moussa Eva Diallo aussi maa lay nuyu Aïcha Faye madame Nia maa ngi lay nuyu aussi ak Aïda Diouf. Hmm, di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm rek rawatina internet yi di wax ne ñun ak ñoom ñoo far <laughs> yaa ngi dégg des fois avis yi moom day partagé wu rek mais di féliciter tamit supporteru Lionel Messi parce que xam naa ne ñoom ñoom moom loo wax waaw ñoom loo wax lu dul Messi rek ñoom duñ la déglu ñoom kon yéen félicitations ci seen ballon d'or boobu am na solo di ñaanal ñëpp jàmm mi di nuyu tamit sama international yi du ma tàyyi di ko wax muy sama rakk Youssou Ndoye di ko nuyu di nuyu yaayam sunu yaay Penda Diawara ak magam Mami Ndoye di ko nuyu bu baax a baax a baax beneen international bu ñuy wax Saliou Ciss di ko nuyu bu baax a baax bi ñu ngi déggante di waxtaan lu yàgg maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu képp koo xam ne daal yaa ñuy suivre mais tamit di wax mention spéciale sama DG Pape Télis Faye yàlla na ko yàlla may fan gudd ak wér yaram gën ko kàttanal di nuyu tamit xaritam madame la ministre ki nga xam ne nii moom mooy euh, Aminata Lo Dieng parce que nit ku ne nam la jàppe rek parce que dama gis ay affaire arrivé ma gis ni mu ci jàppee Aminata Lo Dieng maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ñaanal jàmm. waaw waaw non Fall Fall moom dama koy nuyu da nga waaye li ma leen di wax samay caméraman nañu takki so ay soxna Fall yàgg dañoo war a takki jabar. waaw yow nag am na sama benn waay bu ne États-Unis bu ma yóbbante ci yow ne moom yow la bëgg a takk nga ba New York. bu suba incha allah.